jàmm ak tawfiq ak sutura rabbi sarx sadri wa yasir li amri waxdul uxdatan min lisaani yaxfu xawli nous sommes très contents de venir dans les champs de Serigne Saliou Mbacké pour commémorer ses œuvres qu'il a toujours fait un grand monsieur une grande personne que nous aimons que nous chérissons que nous prions que nous apprécions cette estime ne jamais disgracée qui est ce grand qui nous a initiés dans la bonne voie, à faire de bons actes, à être pieux, à respecter les cinq piliers de l'islam, à être généreux envers son prochain. Il disait que la meilleure connaissance est celle qui mène l'homme vers les hommes. Nous l'aimons très fort, il est dans notre cœur et il va s'éterniser dans notre cœur. Serigne Saliou Mbacké, c'est euh, quelqu'un que nous aimons au plus profond de notre entrailles et il le restera, Inch'Allah Rabbi. rabbi sarax li sadr li wa yasir li amri waxdul uxlatan misaani yaqu xawli xat faxa kabla xat basa fadla fa duru wàlla wala fu jaay himal xafisil maanihi yuxni anil madaafi li kulli xaddin xaasihi yatlubu xayru xurami yal nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal ci barke soxna Faati Jaxate jërë ngeen jëf ñu ngi sant waa génération Serigne Saliou Mbacké des gens qui sont tellement pertinentes et qui sont tellement ouvertes et qui sont en train d'œuvrer pour euh, la bonne marché de cette association. Et Inch'Allah Rabbi, nous espérons qu'il va devenir une confédération de Serigne Saliou Mbacké sous peu. Je vous remercie. que Dieu nous garde. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké waaw. bi ñu ngi sant kenn ku nekk ci turam ak ci santam di euh, gërëm képp koo xam ne teew nga sa tànk fii si Khelcom 2024 mention spéciale soxna yi nag waaw ndax jigéen yàlla da ko teral jigéen ndabu yàlla la. képp ku koy bëggal ak di kontaan ñi ngi sant jigéen ñi nga xam ne ñoom ñëpp nekk nañ ci euh, génération Serigne Saliou Mbacké di kontaan ci nga xam ne accueil bi ñu accueillir di seetlu biñ ci nekkee di liggéey ba léegi ñu ngi ko booleek liggéey bi te loolu lu am solo ndax Serigne Touba Mbacké mi ngi wax ci mawaay bu naafi ne liggéeyal ba yaakaar ne doo faatu waaye jaamul yàlla ba yaakaar ne suba ngay faatu ñu fi ñëwee xool nañ ne jigéen ñi alterné nañ ñoom ñu ngi sant tam jóori bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla ñu ko fiy defee chaque année di liggéeyal Serigne Saliou Mbacke ci tool yi ndax liggéeyal Serigne Saliou Mbacke ci tool yi daa mel ni ku dem xare Badar ndax lépp lu fi nekk atahaama ñam bi ñuy joxe almaaw yi ñuy joxe ndox yi ak koddaay yi ñuy ñëw di ko jox taalibe ak soxna yi nekk fii rek yaa ngi liggéeyal yàlla ndax yàlla nee na fii sabilillah xeex leen ndax man te ñii fi nekk ñëpp fii sabilillah la ñuy def Xelcom 2024 bi Xelcom 2024 bu mention spéciale la maa ngi santaat jigéen ñi ndax yàlla nee na al umma umul sati jigéen mooy ndeyu école ñu ngi sant soxna yi di sant góor yàlla ñi fi nekk di waaje ñoo dugg si tool yi ndax Baylaan Mbàkke ñàkk caaxaan bi mu toogee xalifa sëñ Tuubaa dafa ñëw ba fii na Baylaan Mbàkke maa ngi buddi ngeer fii ci toolu Serigne Saliou Mbacké ngir ëllëg ñu seedal ma ne liggéeyal naa Serigne Saliou Mbacké kon day wund ne uqal bu haaw ala saadati bi Serigne Touba waxoon ne Touba li xabdin muridin saadihin lahu mu bi xidmatin liggéeyal ma aw nga bëgg ma sa xol aw haadiyaat yi nga def ko ñett yëpp daje nañ fii ñu ngi leen di sant bu baax baax baax baax di ñaan suñu borom defal leen fataaxu waxaabu yaa razaaxu yaa maaliki liftax waxal bi war zoxni bi kon la naa barke Serigne Saliou Mbacké jërë ngeen jëf mm-hmm. amiga ombre hombres, hermano, hermana, hijo, chico. Estoy aquí en el luego de Srin Salim Mbake que está Helcom. Cuando estamos aquí hay que trabajar para los Srin Salim Mbake. Srin Salim Mbake es único. Todas las gentes rezar para Srin Salim Mbake. Pero todos los niños que están aquí saben eh, eh, eh, leer, el Alcorán de Srin Touba y el Hasid de Srin Touba. e, e estamos estudiando para aumentar sus conocimientos. Hay un proverbio español que dice machacando es como se aprende la vida. Todas las gente que está así trabajar por Serigne Saliou Mbacké. Dios paga Serigne Saliou Mbacké. Y todos los personajes que están aquí. Jërëjëf Serigne Saliou Mbacké. Jërëjëf di Serigne Saliou Mbacké. Jërëjëf di Serigne Saliou Mbacké. Serigne Cheikh mu Serigne Saliou Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Gracias muchos. Gracias muchos. rahmatullahi taala ladies and gentlemen we are here in the area of Serigne Saliou Mbacké Khelcom is the land in all over the Muslim of the world in particularly all the Murid and Baifal is in Senegal We are here to working in the land and Serigne Saliou Mbacké. Everybody is happy for this man. Everybody pray for Serigne Saliou Mbacké and all the members who are here to working for the way of Serigne Saliou Mbacké. We are very proud to celebrate the day of Khelcom in the land of Serigne Saliou Mbacké. is the first man who are coming to learn for the way of Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul about the land, about the children who are here started this Quran and the Hasidah on Serif Tuba. May God save us, Serim Salim Mbake. Everybody is very happy to be here and to working in the land and Serim Salim Mbake. Thank you very much. Thank you very much for every people who is here. Thank you very much.